monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di la féliciter depuis sa nomination ma occasion def ko di la ñaanal yàlla parce que xam nañ la dinaa ci dellusi di nuyu sa collaborateurs yi maa ngi dooree gis le directeur du port mais deret gërëmul comme on di en wolof baam bi moog yaaye ma bokk yaay moog man ñoo bokk baay donc euh, mbokk la ñu ngi koy ñaanal yàlla aussi yàlla may ko réussite ak ñi fi nekk ñëpp monsieur le directeur du budget ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre dama bëggoon waxtaan ak yow ci problème bu am Kayar am na ñu bëri ñu ko wax wante Kayar dafa éprouvé wu déjà ak problème mu pétrole bi parce que dañu rétrécir aire de pêche bi ndaxte li wër li wër zone pêche bi yëpp zone jugement bi yëpp dañ ni zone interdite lañ ko tuddee loolu mu nekk problème mu Kayar déjà ñu di ko souffrir ñu dellu seeti implantation usine fabrication de farine de poisson bi ñëwati yëkkati dëkk ba yépp te nee na ñu wax la ne yaa grand sëriñ ñooñu seen ay mbokk lañu ñaari famille yu mag ñi nga xam ne ñoo porté tey combat bi mooy famille yu euh, jaraaf Mbor euh, Ndoy ak famille bu Naama Mbay donc ñu amuñu lu dul seen dëkk jógu jóguñu fa bokkuñ ci immigration clandestine ñu ñëw nekk ay espagnol ñëw bëgg fa installé bëgg rey maire bi lu ana lu ñuy reyee maire bi moo di jën yu ndaw yi la ñuy jël te jën yu ndaw yooyu normalement moo war a nekk pépinière bi nga xam ni moo ñu war a may production wu poisson ëllëg donc dañuy rey géej gi monsieur le ministre rax ci dolli bu gée ko bu ñu ko jëlee ñoom muy jën yu bees aussi dañ koy nëbal te suñ ko bu buñ ko lakkee dafay indi problème de pollution te man monsieur le ministre wax naa ko keroog sa collègue gu mine man gëmuma étude environnementale parce que ñun Bambey dañu am ay phosphate ka doon def étude environnementale ba moom la société ba jël far recruter ko sa salaire est ton salaire est donc man vrai véritablement on dire que la corruption mu ngi déplacé wu di jëm ci étude environnementale boobu man nag bi ma bi dama ne leen dinaa ko poser mais ministre bu bees bii xam naa ko parce que dañu nekkoon association des maire bi Sénégal man ma nekk porte parole moom mu nekk trésorier sonal ñu lool lool lool lool bala ngay jël benn dërëm lu nekk ngay daj léeg-léeg ma toog ba mu yàgg ma leen Alioune Ndoye mi mooy kat donc kooku su ñëwee ci lu mel nii te ngay door a ñëw. même maire bi nga xam ne parce suñu benn collègue maire moo fi ne moo fa nekkoon suñu benn collègue moo fa nekkoon maire yàlla jël ko yàlla na ko yàlla yërëm mais maire bii ba mu ñëwee coow li bari na bari goo xam ne metti na metti goo xam ne daf ni moom yoonam nekku ci nee nañ ko sax adjoint maire nga woon mais nee na moom yoonam nekku ci parce que la dëkk ba d'accordul te nag ñoom dañ ci am expérience bu malheureuse parce que CA production bi nga xam ne moo nekk jël mbaam ca ndar usine bu mel noonu amoon na fa nit ñi di feebar ba léegi wéragunu population yi ñoo levé wu ba ñu génne ko fa kon nag bu la kenn compromettre jëlal sa décision demal sur place xoolal conséquences yi parce que usine ci principe environnemental yi gën a élément environnementaux yu gën a élémentaire wax dëgg yàlla usine kenn du ko def ci biir ay nit muy dégager fumée bu bon di sacrifier santé nit ñi loolu kenn wax ko te monsieur le nag sa président moo ne zéro déchet moo ne zéro déchet émergence du loolu donc véritablement yow sama xarit nga mës a doon bëgguma ñu am benn problème mais jógal ci problème mu euh, kayaar bi parce que boo jógal ci problème mu kayaar bi ca télévision bi rek nga may seet ma sànni xeere te duma ko mën a téye nag te yow wax dëgg la ñu apprécier woon ci yow ba léegi moom la ñu jàpp ndax gisuñu la contraire ñëw nañu di diggee ay trois cent cinquante emplois mais jeunes yi démontré nañ ne du ko mës a joxe cinquante emplois sax mënu koo joxe te nag dëkkam rek lañ fa nekkal lu ñu produire Espagne lañ koy yóbbu donc vraiment waruñu nuire sunu sunuy santé maa ngi la koy dénk di la di ñaan di la ñaanal yàlla encore une fois bëgg tam nga nga nga taxaw ci bu baax a baax monsieur le ministre dinaa la laaj léegi politique portuaire bu état du Sénégal nga dellu si ci parce que ñun dañuy ñaan yàlla am un pour compétitif parce que dañ ko séq ak ay dëkk bu njëkk dañ daan wax pooru pooru Dakar pooru Abidjan lay jëkkanteel jox ñu les moyens d' être il faut nous définir la politique portuaire de l' État du Sénégal je